aousubillah min asheytan irajim bisimillahi rahmanirahim allahuma salli ala saydina mouhammad wasalim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi noo ngi lay nuyu bu baax a baax di rafetlu sa teewaay ci kanamu télévision Futur Média dooree nag émission bi nanu ko baaxooy defee mu nekk nag tradition ci ñun ñu ngeen nuyu bu baax a baax sunu PDG président directeur général waaye tam nuyu mboolem directeur ci biir kër gi ak képp koo xam ne fii ngay xëy ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di wax rek ne macha allah boobu nuyoo itam dinañ ko wéyal ci biir dëkk bi dem seeti sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada di leen sopp lool di sàkku ci ñoom ñaan waaye itam di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm yàlla defal leen tawféex macha allah ba lépp loo xam ne yéene nañ ko njaboot gi yàlla mën loo leen ko ñu ngi leen koy ñaanal bu baax a baax. bu ko defee itam mbokk yi ba tey dinañu dugg ci biir maison d'arrêt yi bu ñu waxee maison d'arrêt ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw nu ngi leen di ziar bu baax a baax ci altine gi di leen ñaanal une une bonne semaine waaye itam di leen ñaanal ñu gaaw génn foofu ba dem doxi seeni activité waaye fi ñu toog itam buñ bu mu doon rëccu ci ñoom au contraire na doon loo xam ne yokkute lay doom doon ci ñoom ñu ngi leen koy ñaanal ñi nga xam ne itam jamono jii ñu toogee di def bi émission ñoom ñu ngi ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi ñu ngi leen di massalu bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla may leen tawféex macha allah ba ñu gaaw dellu ci la ñu doon def waaye itam loolu bu amee bu nit toogee yaramam sutante am na koo xam ne moo nekk ci wetam kon boo ki nekk ci wet gi ñu ngi koy ñaanal mooy accompagnant yi ñu ngi leen di ñaanal di ñaanal acteur de la santé yëpp macha allah bu nu ko waxee baw ñu docteur baw ñu assistant baw ñu wax dëgg yàlla képp koo xam ne daal yaa ngi yëngatu ci bërëb yooyu jamono yi tam bu ñu toogee rek ni tal nañu émission am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla tiis dafa dal seen kaw ñu ngee taxawaat bu baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla ngeen muñ di ñaan yàlla mu indil ñu jamono yu dàq yi àdduna moo ni mel te ku fi nekk itam faw dana am yoo xam ne daf lay dal waaye bu la dalee na nga jàpp ne du sax faw yàlla dana ko dindi indiw ñu fii pour sonal ñu waaye nag am na yoo xam ne dafa bokk ci àdduna kon boog noo ngi leen di massalu bu baax a baax a baax a baax ñu ñaanal itam mbokk yi képp koo xam ne dafa baaxoo woon di ànd ak ñun da daan ànd ak ñun te tey yàlla dogal ci moom lu ko neex dañ koy tàllalaat loxo rek di ko ñaan yàlla mu àtte leen ci njéggalam ak dem waaye daaw doy yàlla na yàlla yërëm leen yàlla mën na ko yàlla na nu ko defal ni ki tey la fi sunu xarit Binta Bakhoum jóge woon ñu soppoon ko lool bëggoon ko lool macha allah bu baax doon tax kenn du dem kon Binta Bakhoum du doon dem mukk macha allah bu nu waxee Binta Bakhoum dañuy jàpp ne sax baaxum la sant waaye santu jëkkëram la pour wax leen ne rek soxna su baax bi mu doonoon macha macha allah tey mu def juróomi at Binta Bakhoum jóge fi kon dañuy taxawaat nànk di jaalewaat waa këram macha allah di leen massalu euh, Binta Binta kan la ñu ko doon wooyee waaye nag plus connu sous le nom de Binta Bakhoum muy woon sunu collègue di woon sunu xarit di woon sunu soppe di woon jigéen ju baax boo xam ne jëkkëram sax ko ko njëkk seedeel ndax wax naa ko ci commencement bi bu ñu nee Bakhoum ñu ne baaxum la sant waaye déedéet elle est kan kon bokk ñu ngi massalu waa këram yëpp fuuf fuuf te xale yim fi bàyyi itam yàlla na yàlla teg ci ñoom loxo xam nañ ne rek bu dee ay tante ki bàjjana ki nijaay ak umpaañ ñooñu duñu ko ñàkk macha allah kon bokk yàlla na yàlla defar lépp yàlla defar lépp yàlla yërëm ko bu baax moom Binta Kan baaxum bu ko defee itam mbokk yi dinañu nuyu bu baax a baax a baax sunu maam sunu soppee sunu xarit maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum noo koy ziyaaraat bu baax di sukk ci wetam di ko ñaanal yàlla yàlla may ko fan bu gudd bu ànd ak teraanga ak tawféex macha allah waaye di ko ñaanal njabootam gi yëpp soxna mami Linguère damay daal di dugg Touba. dem seeti Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke. wallaay yal na yàlla wéral ko. yàlla yàggal ko sunu kanam. yàlla yàggal képp koo xam ni rek yaa ngi nekk kilifa diine. nekk kilifa aada nekk fii di ziar ëtt yëpp macha allah. ëtt yëpp baw nu kenn. Mm-hmm. Adja yow itam. nu lay wax rek commence une bonne semaine. waaw ah, ah, merci ñu ngi lay wax nga commencé une bonne semaine. yàlla nañu ko yàlla boole xam nga leen yaa rabbal aalamiin leen ndeysaan dafa diis. dëgg la dëgg leen gi dafa diis mais sant yàlla la rek. axankay axankay. Mhm. Ah, bisimilah kon dañuy door nañ daan dooreeti rek neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba suñu yaakaar yi tey ak ëllëg. Mhm. sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore amiin noonu la ñuy ziyaare mbooleem kilifa diine kilifa aada mm-hmm. di wax ne Sénégal réewum jàmm la ko fii xuloo di xus booy layoo di defe su lépp nañu koy def ci dal mm-hmm. ndax dal rek kay suñu mbokk waaye noonu lay ziyaare itam sama maam sama soppe maam Cheikh Tidiane Al Maktoum mm-hmm. dama naan góor gi ci ruq bi te jàmme réew mi rek a ko bàyyi ci ruq ba kon maam loo fi yàgg doyul waaye noonu lay ziyaare mbokkam ma xaritam ba Cheikh Sidi Al Mokhtar ak mbooleem ak lu mbàkke yu gépp sukk ci suuf di leen jox seen wàcc wàccuwaay di ñaan yàlla mu yàggal leen fi lool te boole ko ko wér noonu lay demee itam ziyaar sama maam Kamara Jibanta Boy Yaha mhm. Dia di ko ñaanal moom it mu yàgg fi loolu te wér sama yaay dëggan si mer yàlla na xeppe ci àjjanay firdawsi eh, di nuyu mama Kinushka ak yaay na fi mhm. ak waa kër gi yëpp maa ngi leen di nuyu noonu laay demee itam nuyu sama yaay Astu Jara mm. Amanti Traoré yàlla na yàlla teg loxoom ci njaboot gi jërëjëf noonu laay ziyaare tam yaay Astu Seck mm-hmm. mère Ndoy mm. Bator Baan ak mari sama soxna soosu nga xam ne du musa am wujju jërëjëf yow moom sa ginnaaw ba ndang mm-hmm. di ziyaare tam sama bàjjan Awa Diop waaye waa ëttu sëy bi mm-hmm. nuyoo baa ngi noonu seen loxo macha allah nuyoo bi am na solo lool lool lool booy piir booy pir di nga nu ñuy ñoom Baye Jibi Dieng euh, Jibi Jibi Dieng mon parent. <laughs> nuyu ñu bàyyi Baddo Dieng. daal di ñëw nuyu nag sunu sunu sëriñ sunu xarit. Mhm. Cheikh Bass Abdou Khadr Mbacké. waaw jaajëf ñu koy ñaanal mu yàgg lool te wér moom Cheikh Bass amiin yàlla yàlla dogal ko di ko ñaanal taalibe yëpp amiin di ziar kilifa diine ak kilifa aada yi ci réew mi yëpp mm-hmm. di ziar waa Pire Sañokoor sëñ Moustapha Cissé ñu ngi koy ziar comme ni nga ko waxee rek mm-hmm. Baye Bardo Dieng sa xarit yooyu nee neen nga mm-hmm. seet si leen moom moom parent moom parent Djibi Diagne Serigne ak soxnaam fii ci cité Kër Damel ak sunu imam ba sëñ Moustapha Ka ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar sunu tata Ndeye Aris ca France ak tata Aïssatou Sacré Cœur ñoom ñëpp ñu leen di ziar di ziar kilifa yëpp. Mhm. Eh, ñu fas yéene xuus ci yëf Euh, Binta Bakhoum moom nga tamit euh, li nga ci wax rafet na te dëgg la jekk mi waaw waaw waaw ami ami Collé man dama koy wooye Binta te day wuyu ah way nee na baax doyul ndax Binta baax la ba dem macha allah waaw noonu noonu la noonu mhm. euh, la koy ñu koy ñu koy ñu koy ziar tamit sunu sœur ba nekk ci Amérique di Fatima Kane ah, di sœuram ñu koy ziar di leen di ko jaal toute la famille Kane ah. ku baax la woon ku mhm. ñëpp ni daal dafa baax mhm. zéro faute ñu koy ñaan rek yàlla fa mu ne yàlla na ko gënal fii mu jóge amiin amiin mm, soxna Eva allah li nga wax am na solo soxna Linguère lan ngay wax ci bésu binta bi yëpp wax dëgg yàlla mhm. mais sërëm boobu itam li mu def baax ak yëg rek la dëgg ndax su fekkente ne daf binta daf daan solal yaay déggeen dëgg la tey xëy na loolu yëpp tey euh, yàlla yóbbu na leen ñoom ñaar ñëpp mhm. kon fa ñu nekk yàlla na leen gënal fii ñu jóge te yàlla gisale leen ak seen soxna ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. mu dellu si waat ne damay feddali kóllëre bu baax woote ñëw leen ma jox leen ay yére kon ñoom daal teraanga seen yëf la waaye yàlla na leen yàlla teralee noonu te yàlla teg loxoom ci njaboot gi rawatina ci nag doom jooju nga xamante ne macha allah. yal na yàlla def mu sut fan waajuram ba te dese barke ndeysaan ay doom sax tabaarakalla tabaarakalla waaye xam nga bu la yàlla ci ci mucc moom bu la ci yàlla jëlee dëgg la daanaka yëpp la ñuy rafet njort waaye boobu da cee rawati incha allah oh. yal na yàlla dogal ko soxna mami Linguère oh. waaye nag mbokk yi di leen wax rek bisimila leen ci wareef ndax sumboon nañ fi benn waxtaan boo xam ne dafa nekk benn problématique oh. problématique sociale accident yi bare na bu baax a baax a baax a baax nit ñi jaaxle nañ ci des chiffres qui font peur Euh, at bu jot nag dañuy toog daal dee def benn journée de prévention mhm. waaye prévention itam dafay ànd ak jël sa précaution mhm. du servir à rien ñu daal dee daje def ay sommet daje def ay conférence daje def ay réunion et des réunions te bu ñu ci jugee du ñu jël suñuy matuwaay bu ñu ci jugee du ñu ci jëlee njàngat mhm. bu ñu ci jugee du ñu ci jëlee leçon moo tax it ñu ubbi nag lii nga xam ne doon na mbir moo xam ne lu laal société bi la muy wàlli accident kër goo gis am na loraange bu mu fa def te bu ñu nee accident mooy loo xam ne buy dikk du tàggoo. Mhm. ngay baal effectivement li nga wax dëgg la. Mm. toujours ñu def ay journée prévention. Mm. woo nit ñi ci semaine nationale de semaine de la prévention. Mm-hmm. woo nit ñi ci ay hôtel. c'est affaire bi du man yàgg naa ko kaas nee naa leen nañ bàyyi séminaire yi. Mm-hmm. séminaire yi lañ fay wax yëpp ci tiroir yi ci tiroir lay mm-hmm. mujjee. dëgg nañ jàkkarlook nit ñi. xam nga yar nit ñi. def ci nit ñi ay jikko yar nit ñi parce que accident yi ci bari ngay gis nii nii nii. na man nañ ma jéggal ci wax bi mais euh, dafa bari impolitesse ci tali bi mm-hmm. ñàkk yar gi ci tali bi dafa bari mm-hmm. te nee naa la fii keroog tali bi affaire accident moom foo ko waxee mm-hmm. dinga wax oto di nga wax chauffeur di nga wax euh, tali bi ñooñu nga xam ne ñoo utiliser tali bi ñooñu nga xam ne ñooy utiliser oto yi ay nit lañu nit ñooñu ci boppam soo leen yarul teg leen ci yoon ku ci nekk respecté ki ci sa ginnaaw euh, nga respecté ki ci sa kanam respecté ki nga xam ne moom mooy ñëw nit ñi ci tali bi rek Mm, yaakaar naa ne di nga mucc lu ba lu bare bari ndogalu yàlla nag ndogalu yàlla la mm-hmm. mais lu ci ëpp accident yu bari yuy am yuy am fii ci dëkk bi ñu koy gis laisser aller bi moo bari ci dëkk bi mm-hmm. ci li nit ñi di sëgg dafa dafa bari ci dëkk bi mm-hmm. looloo tax tey jii suñ bëggee faj ko daal il faut ñu yar nit ñi yar leen et puis tolérance zéro boobu nga xam ne président yàgg na ko wax avant muy nekk président moom ci boppam lool ci boppam la ñu war a jël saxal ko jëmbal ko ba nga xam ne tey jii ku fi def benn infraction boo xam ne ban gëstoo gis nañ ni lii yaa ko tey mhm. wala lii sa càggante la ñu teg la daan ya la ko war sans négociation parce que fii koo fi jàpp uh-huh. Uh-huh. intervention yi dëgg la intervention intervention xam nga Sénégal rek et eh, arrêté nañ ma xaar ma woo diw mu mu jàppale xam nga yooyu ci boppam mooy tax lu bare bare bare ci Sénégal fii du du du du réglé wu te man nee naa boo dee góor boo defee infraction yow yaa war a mhm. ragal a woote rusa woote ndoy mhm. baat da nga mooy mii da gis ko jàpp ci njombe gu rëy rëy woo kilifa nee naa la fii da ngay def toj toj ba <laughs> pare ami supporter dangay def toj toj bu rëy ci réew mi am ñu nekk ci ginnaaw di la jàppale am ay supporters te ñi lay jàppale xam na ni li nga def nii du yoon de mais dañ lay jàppale mais réew moomu nag su fekkee def toj toj am ay supporters réew moomu kañ lay réglé wu te suñu jikko yi nii ñu mel mooy feeñ ci tali bi mooy feeñ ci bërëb boo dem bërëb boo dem ci fu laajal nu mu tuddati euh, foo dem daal entreprise boo dem tali bi làmb ji football bi jikko yi foo dem rek ni li ngay gis ci tali bi. Mm. looloo fa nekk. très bien. très bien soxna Mamy Linguère bu nu sàgganee accident yi dana nekk euh, feebar bi gën a meurtrière ci mm-hmm. ci ci àdduna mm-hmm. ndax li muy indi ay loraange bare na lool lool lool nee nañu comportement yee ko waral ñii dañuy dawal en état d'ivresse mm-hmm. ñii nga xam ne dañoo maîtriser wul volant ak yeneen ak yeneen yoo xam ne am na ci dëgg la wallaay moom de li ñuy wax naan xam naa ne li accident di rey fi mu ne nii siddaak si buru rayagu ko ci réew mi daal mm-hmm. ndax euh, suba goo xëyee léegi dafa mel ne que ne boo xëyee te déggoo sax ne accident am na ci euh, benn route nangam mm-hmm. dafay mel ne que ne dafa am lu manqué ci information bi ñuy joxe dëgg la li ndooy wax nag daf ci am solo dëggan xam nga nag Sénégal koo fi laal teraangaam doon noonam waaye luy naanug yuur moom boo bañee dee bu egsee ba ci sa doq fa xasal te mbir maa ngi bëgg a yegg foo xamante ne sànkar bi tàmbali na ci guro gi am na fu muy yegg bu fa sësee pour dindi ko fa dina naqari te comme nit ñi mënuñoo toog seeni kër bàyyi tukki dem ak ñëw nit ñi mënuñoo bàyyi njaay dañuy am seeni soxla di dem ak ñëw da nga yor sa oto sax yow di dawal normal jaar fi nga war a jaar keneen moom fanaan ca la ko neex xëy di dawal jóge fële ñëw dal ci sa kaw ray boppam reyaale la loolu itam jar naa seetaat bu baax a baax a baax mm-hmm. man dama jàpp ne mbir boo koy raay te du ko faj mm-hmm. da ngay dóor yat wi ci kaw mm-hmm. ndax nit ñi ñeme nañu tooñ waaye ragal nañ ko fayu dëgg la Sénégal nag moom loolu mooy problème bi mooy xamuñu ko tooñ ki fayu lañ xam mooy que nañ ci teg ay sanction yoo xamante ne bu dalee ci kaw kenn kaw ñaar kaw ñett keneen du ko ñeenteel Sénégal nag dañoo gis ne gars yi moom dañuy riir rek dañuy fuur bañ ne fuur nañ ñu dog loolu waral ñu naan ah nañ def lu ñu neex après du mujj fenn dëgg la ndax wax la rek du ñu commencé gis nga permis à point yi bi ko fi commencé ñoom ñëpp a jóg taxaw transporteur yeeg chauffeur yeeg kenn ku nañ la temps de point dëgg la nga defaat ko wàññi waatal nañ la nga defaat ko wàññi waatal nañ la nga defaat ko sa permis jeex na gars yi nga gis ne dina am beneen comportement bu ñu amaat ci tali bi beneen bi ci topp mooy nañuy jox oto yi ñi koy yellool dëgg la ñi ko yellool mooy xëy na weñ la defaroo ko mënoo ko maîtriser à cent pour cent mhm. waaye dafa di nit ki bu amee yenn responsabilité yi mhm. am na lu baree baree bari loo xam ne da koy daw ndax bakkanam lay njëkk a sàmm bala muy sàmm sax bakkanu ñeneen ñi dëgg la mais transporteurs yi aussi nañu seet seen diggante ak yàlla mhm. baña tëdd sa kër ne yéeguma ci oto bi sama njaboot yéegul ci oto bi na oto bi di yab rek di ma verser xaalis sama yoon ci oto bi dafa paan sama yoon ci oto bi am na visite technique sama yoon ci ndax nañ assurance wala leneen ak leneen yooyu yëpp nañ ko seetaat gis nga benn bakkan boo defarul nga faat ko diis na ci doomu aadama diis goo xamante ne ku ko xam ku nekk di ko war a moytu mhm. nañu sàmmaat suñu bopp sàmmaat njaboot gi mhm. tey itam am na beneen bu may gis sénégalais yi di ko def nañ ko moytu ndax yaa ngi dem xamoo ndax di nga yegg wala déet famille du ànd di tukki nañu moytu loolu famille du ànd di tukki daañu koy faral di wax doo jël sa njaboot yëpp yëpp ci benn moto sa jiwu yëpp def ci benn pax dëgg la da ngay fii ji fii bu fii daayalee fële euh, jeeb bi mm-hmm. nañ koy moytu bu baax mais Ndoye Bane ñu ngi wax ne vingt cinq pour cent wu yi boo dee seet ay jeunes la mm-hmm. ma bëggoon ñu waxtaan ci loolu mm-hmm. lan moo waral loolu jóge toujours ci jeunes yi parce que bu ñu dee seet accident yu bare bare bare ci wàlli xaleel ci xale yi lay lay dal gaa yi ci boppam dañ dul jël oto jox ko kañ ko war a jox mm-hmm. Evatra day am bisom waaw dawal vingt cinq ans waaw am permis ni muy doxe mm-hmm. xam xam xam alkaati xam lu lu jaadu ak lu jaaduwul mm-hmm. am ñaari jabar ca kër ga nekk responsable di fayeeku cent cinquante mille pour dawalal Evatra Eva du jox oto bi day xool benn jeune boo xam ne bi mu amee permis léegi matul un na Eh boo xam ne amul jabar amul doom il est responsable de rien. Mm gis ni jeune bi mën naa ko fay cinquante mille. waaw te ndoy baan ma ko joxe oto bi dinaa ko fay deux cent mille xaar ma jox ko jeune bi rek. Mhm. daan ni jeune bi nag temps nga may versé. teg mhm. ko teg ko versement. teg ko lépp booy bi li muy dawal yëpp versement lay calculer ak mhm. salaire am. xalaatul yoonam nekkul ci client yi. paa bi nga xam ne nag moom nga jox oto bi. su ki ngay war a jox fay deux cent mille par mois. kook soo ko dee dawal soo ko su dee dawal dina xam ne responsable la dina xam ne kilifa la dina xam ne daa amul njaboot dina xam ne daa am soxna su faatoo dóore oto bi ci garab gi su faatoo moom ci boppam dina fi bàyyi njaboot goo xam ne maara day taali kook dina xam ne muy def kooku dina respecté nit ñi kooku lu ne daje na ak moom daje na ak moom ci ci ci ci ci tali bi su oto bi paanee dina xaw fu muy dugg maanaam su amee problème dina am nu mu koy réglé mais jeune bi moom moom moom nu mu dawalee baax na soo ko waxee nu ko neex lay solo du respecté euh, oto bi du respecté clients yi du respecté sax policier yi ak gendarme yi romb ci tali bi di nga yàq sa oto rey nit ñi rey sa bopp doy baan ma bàyyi la ak ki nga xam ne moo nekk ci ligne bi nga waxtaan moom tuuti allo salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax. xam naa Babacar soxla nañ ko fi lool. Ndoye Bane maa ngi ngi lay dégg waaw. grâce ñu ngi sant bu baax a baax. bon man nag maa ngi woote ba Koungheul quoi. Koungheul waa Koungheul. waaye ñu sant yàlla wér. jaajëf ñu ngi lay déglu. bon sa numéro laa soxla dama amoon benn trop trop nga xamante ne sama sama bakkan xaj na sama xaru xaj na si yàlla xam na ko. d' accord léegi da ngay ma soxla d' accord na la gaa yi jël ci suuf jox la ko incha allah. d' dégg nga. très bien. xam naa ni soxla nga fi Babacar daal waaw Babacar day moom da xam nga Babacar day wëndeelu rek moom soxla nga ko fi lool lool lool dégg nga léegi léegi léegi xale boo xam ne respecté wul boppam respecté wul client yi mm-hmm. respecté wul oto bi mm-hmm. cinquante mille yi nga koy jox sax soo moytul su ci jotul amul amul problème mhm. kooku lu ko neex lay def lu ko neex lay dawale dëgg la te loolu noonu da dafay feeñ ci secteur yëpp mhm. duñ jël l'homme qu'il faut place qu'il faut c'est ça mhm. problème dañuy jël benn Babacar moo xam ne ba mu amee da daan oto ah raxas ay oto ba xëy suba am permis amul expérience tali bi musul dem fii ak Kaolack nga jox ko benn bis muy daw fii ak Kaolack dafa daan raxas oto moom itam waaw waaw c'est soo xoolee xam ne mu ci loolu la daan def léegi amul benn expérience oh. musul génn Ndakaaru wala taxi sax musu koo dawal nga jox ko bis sa waay kooku jël nga bakkanu jàmbur yi teg ko ci xottu oh, oh. xottu gerte c'est ça soo xoolee booy yi lang ñi nga xam ne ñooy lang booy ci ëllëg duñ sax am place imagine la ngay daw war a daw fii ba Touba wala fii ba kaw la nga yeb bis ba mu fees booy yi ci ginnaaw emprunté yi ci ginnaaw la ñuy lang mm-hmm. ci jàpp ci escalier yi ci ginnaaw foofu la ñuy foofu la ñuy lang mhm. oto su dawee ba mbëkk mbëkk mbëkk mbëkk mbëkk taatu kaar bi mhm. day tànc ñaari emprunté yi ci ginnaaw ñu daal di dee loolu mooy problème bi dëgg la xam nga te te te moom sa oto mhm. oh, ñu lay versé ay ay ay millions te jéemoo xool bu yow sa oto bii nan lañ ko yoree ci tali bi ñan ñoo ko yor ñii nga yor est-ce que ay ay responsable lañu yow toppatoo loolu nañ ñëw di versé nañ versé rek loolu loolu loolu problème loolu may rey nit ñi ci tali bi et bi tamit na na def gis nga lii ñuy wax tamit état bi da ciy am responsabilité bu rëy na yokk tali yi nañ yokk tali yi ba pare doog a yat wi diggante ndakaaru ba jëm Kaolack jàpp Kaolack jëm Tamba nañ yokk tali yi bu baax a baax a baax mhm. su ko defee ñu yokk sécurité bi tali bi yokk de panneau de euh, signalisation yi ku ci nekk ñu xam gars yi respecté wuñ sax code de la route code de la route doon nañu soppi tam ñu koy jàngalee ca ndorteel ba école mhm. waaw kañ ci wàlli civisme mhm. yóbbu ko jàngalee ko école ndax dégg nañ ni am na yenn dëkk yoo xam ne ñoom boo demee ca ca tout tànk yi jàng code de la route xam nga loo xam ne ci njëlbeen lan la ko sol nga xam ko bu baax ràññee Mm-hmm. boo demee ba màgg boo ci defee leneen lu safaan yow la neex. suñ ah, ah. loo ko jàngal du ko fàtte. waaw ah. mais xam nga toog ba nekk la ci école bi. toog ba nekk magum jëmm dem na yaa ngi koy jàngi. waaw te mag day yenn mag yi dañuy taayalum jàng. Mm-hmm. keroog ba ñu duggee ñoom la leen ci intéressé mooy permis bi la ñuy wut mais xam bëgguñoo xam code bi. dëgg la mais li Ndoye Bane wax tamit xam nga nit it mënoo koo xàllalu tali yoon wu ñuul kukk. Mm. te tegaloo ko ci ay lamp lamp dafa baax ci tali. mami jëlal ki ci ligne bi nga dellu si waat. asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. soxna su baax si ñu ngi lay ziar. ñoo ngi dellu ziar bu yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm maa ngi ci émission bu baax. ñoo la gën a bég ak di la déglu ci li ñuy euh, waxtaanee. di kontaan ci Tata Eva. merci beaucoup. ak euh, tonton Ndoye Bane. Mhm. merci. Euh, man nag mosuma woote ci télé nii c'est la première fois. dëgg la. mais parfois damay. suivre émission Wareef muy émission boo xam ne askan bi la fi nekkal te kontaan nañ ci trop. Uh-huh. Mm-hmm. Euh, man nag tey dama woote parce que barki démb vendredi. Uh-huh. Mm-hmm. dama suivre lu ma dama dama dama subir lu ma naqari. loolu lan la. Euh, te ñun fii Sénégal télé yi la am pour di ci wax suñu mm-hmm. uh-huh. ndax euh, dama di xale. di di bëgg di daal sama doole di yëngu ci jënd ak jaay business yi jënd ay oto. léegi nag vendredi dama dama wàcc. dem ci sama rakk bu nga xamante ne nii. solier la bu gisee oto moo may xoolale. léegi bi ma demee fekk atelier ma xaar ko ba ay 18 heures. mu ma léegi xari xaar ma ma pare ma xool euh, kii bi euh, oto bi ma delloo ko garage bi. ñu soog dem xooli oto beeg. ma xaar ko ba mu pare mu ne ma nañ dem ma jënd euh, gasoil ci sel bi parce que sel bi moo gën a moo gën a ba gasoil am baax daal. am mhm. na ma dugg si oto bi deux portes la. waaw te daf koy defar mi ngi pënd mi ngi sol na mhm. ñëw ba ci sel bi di di sol gasoil policier bi fekk ko fa. bi mu ko fa fekkee daan ne ko euh, permis boo ko génnee ko permis mu ne ko carte grise mu génneel ko ko mu ne ko assurance mu ne ko oto bi dañ koy defar pareegul. Uh-huh. mu ne ko uh, fayal oto bi jox ma mu fay oto bi taxaw uh, xale bi daal di wàcc topp ko comme uh, li habitude yi def chaque jour. Uh-huh. bi mu ko wàccee topp ko topp ko toppul mu ay 30 minutes. Uh-huh. arrêté na tam oto yu bari. léegi xale bi ñëw at fekk ma ma ne ko yow lan la mu ne ma mille francs la may laa te man 1000 francs laa yore fekk policier bi ñu ngi taxaw. ma daan nekk waa jox ko di ubbi sama pochette pour jox ko cinq mille mu ne ko déet soxla ma sa xaalis soxla ma sa xaalis dugal pëj laa ñu ñëpp yow war dama koy fier ma ne sama bi ah dem noonu ma nar yéeg si oto bi mu ne ma doo yéeg wàccal ma ne ko yow jàpp bi ko jàpp ak man ma yéeg si oto bi ça n'a rien à voir da nga ko jàpp nañ dem. li nga koy li nga ko li ko jàppee ñu ñu ko mais man damay yéeg ci oto bi mu ne ma doo yéeg ci oto bi man ne daal ne foofu sama xol yéex ma daal ne auzu billaahi mina sheytaani rajiim yan nañ daal di ànd ak xale bi daal di dem uh-huh. dem daal di daal daal di daal di koy gaaraloo oto bi uh-huh. ñu daal jël taxi fekk foofu uh-huh. muy nag injustice bu nga xamante ne nii naqari na nag doomu aadama yi parce que à chaque fois nit comme yow tenu kase sol ko di la toroxal yuuxu nit jour boobu yàlla mi moo ñu tiim wallaahi la ak barke Seydina Muhammad bu fekkente li may wax dara rek am lu ci fotow yàlla bu ma fekke tey journée tey bi ñu bëri jour boobu euh, gaar na leen foofu am na ku mu sax fan bagaarat uh-huh. muy nag loo nga xam ne nag euh, war nañ ci wax nag mais ba ba fan fan la exactement géejawaay ci station Shell bi vendredi ay dix-huit heures ñi may déglu ñi ngi ñi ngi ñi ngi xam policier bi fa monté jour boobu lan la fa def Mm-hmm. ñu demee nag fay nañ suñu xaalis récupéré nañ suñu oto mais nag toroxal nit ñi ak di jaay doole nit ñi te ki ngay jaay doole gënuloo ko te sëmbi ba la fa teg la tax mu mu teg la fa doo ko def yow xaalis ngay laaj parce que deux mille francs la ko jox xale bi jox ko mille francs mu ne du laal mille francs yi dañuy dimbali ngir yàlla policiers yi ci population bi dañu bàyyi corruption bi ku ko wax nag dee mais nañ ko wax te jërë maa ngi leen sant di leen gërëm foo ko waxu lii sama tata du sedd oh, parce que ñu tooñ la jaay la doole te amoo foo ko fajee bu demoon police tey jii moment bi may wax ak moom noonu su demoon leneen la ma fay waxal dama dul am dara la waxam ne ma ko fay teg yéen nga xamante ne ku am lu ko naqar jooytu ci waxal leen nit ngir yàlla oh. jërë ngeen jëf jërëjëf <laughs> jërëjëf d'accord mm-hmm. euh, euh, mi ngi ci bu kenn xeebal kenn soxlaam déedéet mm-hmm. Euh, pour wax la sax ni xam naa wax ci lu yàgg dana nu dana xaw a jafe ndax du thème bi uh-huh. waaye li mu wax itam lu am la ci société bi te bés yi di ñëw bu soobee yàlla daal dinañ ko sax def tem uh-huh. pour que ñu gën cee mën a waxtaan ndax léegi saa yi danga dugg ci mairie itam li muy wax rek lay topp uh-huh. fekk koo xam ne au feeling lay liggéey nga ñu yóndi la beneen bureau itam nga fekk koo xam ne daal boo moytulee dafa mel ni sa kanam gee ko dul neex dina ñuy dal nag ñun en pour xam Oh. waaye fii daal dafa mel ni léeg saay boo dikkee yaa may neex wala doo ma neex itam daf cay am daf cay am kili mosoon mhm. nañu gis beesu mami lingeer bi fii ba mu mayee woon itam <laughs> ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ma ngay ne yii nii mënul ñàkk ci corps yi dëgg la mënul ñàkk ci corporation corporation yi uh-huh. sur sur sur mille policiers waaw euh, dix deux dina ko ci def ba cinq noonu mën naa ni sur mille policiers prenons dix dix policiers mën nañu uh-huh. nekk di uh-huh. def genre affaire yi mel nii su ko defee da nga naan policiers yi hmm. tey jii mën nga jël kaaw journalistes yi mhm. sur sur seen mille journalistes am na dix journalistes yoo xam ne dañuy corruption la ñuy dundee. Mhm. mais da nga naan journalistes yi. Mhm. ñun lu ñuy dee wax lu ñuy dee wax euh, sunu mbokku taskatu xabaar yi dañuy wax ne boo demee ci nit mu jël koppar gu bare. Mhm. jox la ko du sa liggéey doo ko mën a def ak aisance. effectivement c'est la même boo bëggoon bind ci moom boo bëggoon bind ci moom la réalité. dootuloo ko mën ndax li mu la bokkal. looloo tax ah. journalistes yi su ñuy dem reportage. ñu baal ma ñu baal ma nag moo tax journalistes su ñuy dem reportage. ay point de presse ak yooyu. c'est leen di tere passe ba leen di jox. passe boobu dañuy jàpp ni corruption yow soo wootee soo wootee point de presse ci bu wax benn affaire may ñibbi nga yëkkati benn dix mille francs jox ko su ma tiimee sama pilim di bind sama xel mi dina demaale ci dix mille francs yi nga moo tax la ma war a bind su safee waree saf waroon a saf sax dinaa ci am naa ci def tuuti ndox ndax dix mille francs yi ah. loolu la tax ñu lay tere passe ban lay jox ñu ci bari nag su reportage jeexee dañuy toog di xaar dix mille ya xam nga nag ñun Sénégal itam. waaw ah. Linguère mhm. du c'est pas le thème. wallaay teranga da ngay seen xale sax mu yàgg ci naaj bi nga romb ko fee muy jaay ndox nga jël ñeenti téeméer may ko. ñun mhm. tamit dafa am yoo xam nga loolu bokkul. dafa dafa nekk ci ñun loolu da nga ko koo may. waaw bokkut ak ma rendre le service. nga may ma. voilà bokkut ak yow nga woote dara. d'accord pour ma wax ko Sénégal yëpp ci lii. Mm. may ñibbi nga joxaale ma dara. mooy mooy mooy mooy mooy nag ma defaral ba mu baax. bokkul. waaw bokkut ak tey jii. Mm. man ma dem reportage. Mm. ca ca ca ca ca yor ñaar ña yor wàll accident ya. waa ñam nu ñoo tuddati ñooñu ñooñu war a fay. ña mm. fi paa ba jim wax. waaw ñu mu tuddati. may ma ma ma dalal ki ci ligne bi. <laughs> le temps que ngay réfléchir gis nga évadé. waaw réfléchiral balaa maa dikk ci yow nga wax ma ni mu tudd. salaamaaleykum. waaleykum wa rahmatulah. Ah, mbokk mi bisimilah yaa ngi ci émission Wareef. ça ngi leen lay delloo ziar bu wér. Euh, te déglu naa leen man kay femme bi ma déglu léegi mu doon wax waxu policier bi. Mhm. Oh. dama am loo xam ne bëgg naa ko ci yokk rek. mu di. parce que dama bëgg xamal sénégalais yi ne. waa il faut ñu comprendre leen. Mhm. que lii di police lii di gendarmerie. Mhm. war nañ leen junj ñu xam ne c'est des prestataires de service public. Oh. askan bi lañ fi nekkal. Oh. donc ñoom ñoom muy gendarmerie muy ñu nekk ci état bi yëpp. il faut ñu xam ne ne ay prestataires de service public lañ ils sont là pour le peuple ñoo xam ne askan bi lañ fi nekk boobu boobu mooy benn mhm. ñaareel bi mooy accident yi bëri ci circulation bi léeg-léeg ngay dawal guddi romb camion boo xam ne amul feu arrière lu camion boobu dem romb poste gendarmerie ñu bàyyi ko mu dem après bu romb lu euh, poste gendarmerie bi def musi ba rey ay nit mhm. Mhm. responsabilité yi c'est partagé force de l'ordre yi nekk si si si tëli bi di bàyyi yenn oto di romb amuñu amuñu ay feu arrière amuñu dara ñu bàyyi leen ñu dem ba créer accident mais ñoom tam ils sont fautifs autant que le chauffeur mhm. donc loolu yëpp war nañu xoolaat ni ñu koy saytuwaat xool ni ñuy ni ñuy ni ñuy ni ñuy ni ñuy ni ñuy arrêté yooyu mhm. loolu laa amoon lu lu néew lu ma lu ma contribuer lu am solo di di di di di bu baax nag jërëjëf jërëjëf macha allah am na solo lool waaye mhm. waxtaan wi sam tam sànq mami danu la daggoon nga nekkoon fu am solo uh-huh. yaa ngi doon wax ne bu goudron ñuulee kukk dëgg la te làmp amul mhm. ñu delluwaat foofu ndax amoon na solo lool dëggantaan li ñu ñuy jaayee tali dafa cher dëgg la te ci suñu alal lañ koy defaree mm-hmm. ndax loolu ñu koy defaree bu ñu fàtte ne mm-hmm. même bu fekkee ne beneen réew ñu ko lebal itam dañu koy fay te li ñu koy fayee ci suñu ñaq lay doon mm-hmm. kon loolu dañu cee war a defal loo xamante ne dañu ciy mën a boole am suñu yitte dem ñëw waaye sàmm suñu bakkan sàmm suñu bakkan njaboot tali bi li nga koy defaree boo ko defaree pare war nga mën a calculer que ne lii ngay defar dafa war a leer dëgg mais da ngay xool lu toll ni autoroute à péage leneen ak leneen nga defar ko mu nekk nga dum tali oto war cee jaar amul benn làmp amul benn làmp bu fa nekk. autoroute à péage. ak yu yeneen yu mel ne moom. am na am na lampe de. autoroute bii nii nii avant mu doon avant mu doon am lampe nit ñi sonnoon nañ. am na beneen partie bu amul. Euh, ñu ma bii jëm biir Dakar nii. waaw avant mu doon am lampe nañ lool bi romb ko ñu kër Ndoye Bane noonu dem. biir Dakar boobu kese am romb ni avant mu doon am lampe sax nit ñi sonnoon nañ lool. Mhm. tali boo koy defar danga nga cay prévoir lampe ya parce que dañoo war a ànd. beneen bi Ndoye Bane wax tamit panneau de signalisation yi nañu koy yokk mhm. di ko ci def ndax loo jàngadi jàngadi jàngadi boo gisee panneau mu defal la benn flèche bu def nii xanaa di nga xam ne fii nga jëm nii virage nga fa wala leneen mais ñu defaree tali tamit mu nekk deux voies yi bu ñu jël rek ay xeer ak seen kiiw plastique yu ndaw yooyu teg ko fi ne mooy séparé ñaari yoon yi dina tax kenn ku jóge fële mhm. saaraan dem fekki ñeneen ñi mhm. nañu fay def la ñu fa war a def mais liggéey bi li koy yàq mooy mhm. dañuy tàmbali te duñu eggale bëgg a tali boobu su ko defee la war a am lépp du fa am nga teg ko di ko dab dabaatal liggéeyu dab dabaatal baaxul comme ni mag ñi di bañee toggu njaalo mais liggéey njaalu tamit noonu la bonee mooy que da ngay liggéey lii tey ne pare na ubbi ko oto yi di ca daw ngay dab dabaatal la nga ca war a def oto bi dafay daw ñëw ba egsi ci benn mbedd fekk ñu fatt ko hmm. jëlal sa temps nga defar ko ba mu pare nga soogay di ko ubbi hmm. la bay doon dundee ba sax fa sikki mën na faa dund ba dee te dara du ko ca fekk la mooy nañu doon def ba doon teggi hmm. ñu continuer di ko def di ca teggi mais beneen bi ma gën a jaaxal tamit mooy nit ñi tamit daw ñu mbamb ndax saala yaa ndeer safu leen dara saala saala yaay ndeer saala yaay ndeer ca fecc laa doon dégg waaw mais sénégalais yi dawatuñu saala yaay ndeer may ma da ngay fekk tali bu ne tacc nga ñëw lal ca kawam ne yaa ngay jaay moom wax saala yaay ndeer dawoo saala yaay ndeer <laughs> ma mi dàqaguma la mënuma laa dàq sax danga may jëlal danga may jëlal ma ki ci ligne bi du ma la mise à pied asalaamaaleykum <laughs> maaleykum salaam sëñ bu baax bi maa ngi lay ziar ñu ngi delloo ziar bu soxna oh, mbaa yaa ngi si jàmm ñu ngi lay déglu si li ñuy waxtaanee waaw dafa vraiment kontaan naa ci émission bi jërëjëf waaw mais dafa am loo xamante ni man daal mooy suma problème majeur dans ce pays yow rek la ñuy parce que problème bi am mooy problème bi nga xamante ni mooy accident bi indiscipline bi am ci dëkk bi. Uh-huh. kooku dafa commencé si jikko yi. Uh-huh. Uh-huh. deuxièmement maa ngi dégg ndaw si di wax léegi mu ngi naan accident euh, policier bi ko jàppoon. bi mu comporté ak moom. ci biir wax ji pour man nit ki sa responsabilité nit ku honnête dëgg ku responsable yaa ngi war a commencé si jël oto. teg ci këyit normal. nga soog koo teg ci tali bi. mooy responsable choix bi nga xam ne si yow la war ko commencé. deuxièmement gis nga dëkk bi dafa am loo xam ne ñu ngi fi mooy ñuy wax da ngay gis ay nit ñoo xam ne dañuy taxaw lu nekk ñu wax ko. dëgg la te ku ku ci am force de l'ordre arrêté man dama te dama ci fekke yu bëri. Mhm. kuñ ci arrêté mu jël numéro kilifaam wala benn kilifa woo ko te day def njombe boo xam ne kilifa gi woote na waa ji bàyyi ko mu dem. Mhm. Mhm. loolu mooy problème bi nga xamante ni mooy problème majeur. damay jànkonte lu bari mais toujours da gis agent boo xam ne léegi dañ koy néewal doole à tel point mm. moom da ngay ci liggéey bi nga xam ne sax moom la doon def. te buñ ko woowee bu bañee moom ñu daal di koy jël daal di koy sanctionné. Mm-hmm. je pense que côté boobu war nañu xoolaat jikko yi bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw merci beaucoup aussi merci beaucoup. merci beaucoup rafet na lool. man ni euh, mais waaw mais mais il a raison. tey jii man man damay nekk policier. monté ci tali bi mam yi def lu dul yoon ma arrêté ko bëgg ko jàpp bëgg a fourrière otoom mam yi li muy njëkk a def mooy day day jéem a woote ji wàllu day dem wooyi sama kilifa pour sama kilifa gi woo ma pour man ñu bàyyi ma lool lool loolu nu mu tudd dëgg la loolu nu mu tudd sama kilifa woo ma ne ma kooku sama jigéen la bàyyi ko bàyyi ko mu dem mhm. su ma bañee man maa ci am problème mhm. loolu mooy loolu mooy Sénégal. monsieur Mané nee na la woon ci corruption bi la bokk. mais dañ koy gisee ak beneen bët. beneen bët rek xam nga Sénégal lañ nekk nag mag ak rakk lan rek. voilà Sénégal lañ nekk loolu moo fi am fii amul kenn kuñ fu musta arrêté. ngaw am koy woote man mii yenn saa yi ñu jàpp sama nit nit kooku woo ma ma am fu ma woote. loolu mu doon dalay dal damay dal damay dal day dal ñii seetaana. dëgg la da ngay gis ko yor saako yàmbaa ñu jàpp ko. Mhm. ñu koy wutalee wallu. dëgg la nga gis ku violé xale bu jigéen bu ndaw. am aisance waaw ñu jàpp ko muy wuti wàllu. wallaay tey fii Sénégal loolu la. te yow boo defee lu ñaaw war ngaa war ngaa rusa ut. voilà uh-huh. lépp loo def ci dëkk bi rek accident da ngay def accident mbëkk téeméeri nit ñu faatu. ci ñu jàpp la yaa ngi wuti wàllu pour ñu libérer la. Oh, te oh. war ngaa sopp ka ngay wutal wa ka ngay dem ñaani wallu ci moom war ngaa rusa dem fàtte nañu bakkan yi nga waddal fàtte nañ bakkan yi nga waddal sa kilifa de war nga koo rusa wax yenn yi c'est vrai mm-hmm. dama ko mës a dégg mu wax lu am solo mm-hmm. mu ne mu ne bu nit rayee nit ba pare ñu jàpp nit kooku tëj ñu naan droit de l'homme nee na droit de l'homme nee na nee na ki ñu rey moom ana ay droit mm-hmm. moo ne moom it am na ay droit parce que moom xëy na ci yoonam la nekkoon oto fekk ko fa teel ko wala ñu def ko leneen mais tamit xam nga li ma gën a jaaxal mooy ki nga xam ne danga ñëw fekk ñu ne la lii tali la tali bi ay oto rek ñoo fi war a jaar nga ñëw ci peggu tali bi lal fa toog ne da ngay jaay ñu wax nga ne déedéet dëkk bee metti damay wut sama teraanga dëkk bi loo wax ñu ne sama teraanga sama teraanga ma yaakaar ne xanaa yow sa bëgg-bëggu bopp warul mën a tax nga lor sa bopp loraale ñeneen tali bi du jaayukaay da ko war a bàyyi pour oto yi ndax yow naanoo essence pour ñi naan essence la bàyyi ko ak waat euh, oto yi ñu daw fa. man oh. xam naa du du ñàkk ne sama euh, salle bi dafa rax ay njaayeen rek. Mhm. ka caméra yi dafa war a rax njaayeen xanaa damay daal di dem. rek non am caméra buy wax seeti seeti Papa Samba ndax moom dana xam fa may waxee. Oh. bu ko defee nu daal dee dellu si waat sur le plateau. ñaan yàlla yëf yi saafaraw waaye itam saafaraw dina bokk ci ñu topp li nga xam ne waa prévention routière mhm. moom lañ ñuy dee wax du jëriñ dara mami ñu waxtaan ak askan wi ba noppi bu nu ci noppee mhm. ku nekk daal dee def lu ko neex mhm. wax naa ko ci suba teel ba nuy commencé dëgg la mais foofu tamit sànq bi nga koy wax yaa ngi doy baan dama caa soxla woon benn genn waa liibar jox nañ la ci liibar sax nag faf xam nga Sénégal lu ñu tardeel waaw séminaire trois ba séminaire séminaire trois bi waaw looloo ñu tardeel dëgg nañuy wax mhm. waaye nañuy jëf dëgg la gaa dañ naan nañ ko jëf joo sa gis ci nañ ko wax la tàmbalee ah, waaye ñun daal seetlu naa ne li ñuy waxtaanee bari na lool mm. waaye li liñ ci exécuté néew na lool dëgg séminaire yorul tali bi mhm. mën nañ koy waxtaanee xay na benn yoon ci at mm. waaye daal waa prévention nangam mm. waa fonds garantie automobile la nga fee mm. daje nañ dem nañ ci benn hôtel bu bakkane daja nañ fa di waxtaan fekk na oto yaa ngay rey ca tali dëgg la le temps ngeen di séminaire ba pér joom ya di daw lekk ya di daw leneen ak leneen di daw ngeen génn ñëw li ngeen di demee di ko séminaire toog leen ko ngeen génn dem fekk nit ñi fi ñu nekk ngeen waxtaan ak ñoom mhm. dem seeti garde routière yi wax wax ak chauffeur yi def sensibilisation def sensibilisation lu mel ne tey fonds garantie automobile mhm. ñi ko xam ci réew mi bari wuñu bu buñ ko xamee ñoom dañu yaakaar maanaam réalité ba ca ne la ca ne ñu bari xamuñu ko ci réew mi parce que ni ko Ndoye Bane waxee keroog ma waxee ko noonu mm. ñu bari noonu lañ ma woowee di ma laaj mooy lan mm-hmm. <laughs> te li ma wóor mooy laaj nañ ko Ndoye lu ñuy liggéey fond de garantie automobile ñaata xaalis lañ yor kan moo leen di financé damaa mujj damaa mujj ne leen léegi da ngeen ma état moo ko fi teg état bi waaw mais nit ñi xamuñu ko dëgg te li ñuy demee di séminaire ñu ko defoon ci ci sensibiliser nit ñi mm-hmm. nit ñi gën a xam pour gën a mën a xam fan lañuy jaar wax nga dëgg sénégalais bañu ñu jóg dem wuti kayit mais li ñu mënul mooy dem di rang ci lu ñu xamul nañu leen génn wax ak nit ñi. Mhm. yow mi ñu fal nag. Mhm. xam nga mooy li ma la doon wax keroog naan la. Mhm. gore di weesuwul. waaw nit ki fal wóolu la fal la. kooku da nga ko war a jàppale mm-hmm. parce que ñoom ëllëg bilan bi mi ngi delluwaat ci président mm-hmm. jaar ca ministre ba jaar ca keneen ak keneen mm-hmm. te 14 million d'habitants la ñu wóolu la mennum yow jël la ci fal la 14 millions d'habitants ak ñu ndoy baan wax ne kenn xamul leen déclaré wu ñu leen des na 2 millions yu ñu déclaré wul soo ko na 2 millions yu ñu déclaré wul muy très bien te confirmé nga ko yaay jigéenam yaay bind mooy maas <laughs> kiif kiif buri ko ah allo salaamaaleykum waaleykum salaam ah kilifa gi bisimilah yaa ngi ci émission wareef. waaw soxna sa nga def. ñu ngay sant yàlla di la gërëm ci sa woote. waaw dama bëggoon participer ci waxtaan wi. xanaa Ndiaye nga sant. ah non Sow laa sant. Seydi Sow macha allah bisimilah. di woote fu ñuy wax Wuro Sogi. ah Wuro Sogi macha allah. débat bi amal ma solo lool parce que dañ fi wax lu am importance. Mm-hmm. yu mm. bëri ñu koy dund ñun citoyen yi te yàlla def ñoo toog di ko mën a jooytu fenn. Mm-hmm. waaw li ma mën a wax daal ngeen ñuy xollil suñu góom yi daal góom yi bu woon yëpp yéen a ngi koy xolli. mbaa bu nu paree dana wér rek. Eh, waaw yaakaar naa ne bu fi jógee war na mën a wér. man ni di wax ak yow nii. Mm. depuis 2013 def naa foofu benn accident. 2013 mm-hmm. jusqu'à présent. Mm. bon bi ko yàlla dogalee mu ma am ko fa. Mhm. vraiment garantie automobile jëloon nañ kii bi faju yàlla def vraiment ñu respecté ko boobu maa ngi tëdd xaw ma fu ma fare. Mhm. mais biñ demee ba nga xam ne ci fin bi. bu fekkee so suma yaram yi ay feer yi nga xam ne mu mu ma mu téye ma lool ba nga xam na léegi pour nga liggéey sax di génne feer yi problème lay doon ci yow. pour ah, problème sedd nii sax bu amee. pour nga dox normal sax day dal di jafe ci yow. Oh, léegi nag mu doon problème. léegi soo jógee bëgg delluwaat fële. Mm-hmm. garantie automobile ñu ne demal jëli numéro PV bi. nga ñu jox la police centrale nga dem police centrale. ñooñu aussi naan la tey suba ginnaaw suba. kii ma ko seq xam naa ko bu baax. ñaata yoon jox na ma ak rendez ba tax na fi mu toll nii bu ma joxee rendez-vous damay taayal a dem. Mm. parce que fi may sori na da ngay paas jox la rendez nga ñëw mu xool la ñëwaat ne la demaatal ba benn jour. Mm-hmm. man daal affaire yi xamatuma léegi lu muy nuru parce que bi nga xam ne ma sama bopp respecté nga ma ne ba tane war a génn affaire yi nga xam ne mu ci sama tànk yi. pour ma toog wax ak moom daal normal daal man mënatuma ko am vraiment mënatuma ko am. Mhm. ay rendez-vous yu dul jeex 2013 jusqu'à présent mënumaa fexe ba génne feer yi suma tànk yi. Mhm. parce que chaque fois boo ñëwee Dakar mu jox la rendez-vous nga ñëw. Dakar boo fu ñëwee dëkkoo fa yaa ngi ci logement yaa ngi fay lekk yaa ngi fay naan fi nga xam ne gëj nga liggéey ay at bon kooku doo fu mën a yàgg yenn yàgg yi. dëgg la une semaine mënoo ko wax man xam naa bu baax. inspecteur fay la tudd. Uh-huh. inspecteur Faye la tudd mu yor dossiers yi munoo wax a wax a wax a wax ba mu génn la say dossier uh-huh. te léegi munatoo dem fële garante ak ma ne principal dañ ne ma lii war na dañ. ay uh-huh. waay. joxoon nañ ma rendez-vous war na mën a dañ. soo demee fale ñu ne la demal la euh, gars yi bind la lettre nga ñëw su ma demee garante automobile pour ñu bind ma lettre ñu ne ma foog nga dem police. ñu jox la numéro dossier bi. Euh, léegi numéro euh, waaw. xam nañ ne daal wax dëgg yàlla sonn nga da ngay jël numéro oh. Ndoye Bane. Mhm. ndax ngeen am démarche yoo xam ne daa ngeen ko defandoo. Mhm, mhm. incha allah. bul quitté bul quitté ak la régie. ñu jox la ko ci euh, da nga koy yóndee message xamal ko ni yow la. ndax feer yooyu itam bu dee ne dafa amoon àpp pour mu deñ war nañ ko dindi sa yaram nga féexi tam. vraiment jaaduwul même xoolal samay pièces. waaw nañ ko jël suuf na heureusement ah nañ ko jël suuf ah, wala muy na na jël sa numéro bu ko defee wax dëgg yàlla ngeen doxandoo ay jéego mhm. Mhm. mission la bu ma la sant xam sa jikkoo tax ma sant la ko xam naa ne dana dana gaaw bu sobee yàlla moom la yàlla may chance mu mën a wax dëgg la mais soo génne woon ñi nga xam ne defaluñ leen feer bi seey ah te ñu defal leen bi nga xamante ni dañ ko war a dindi moom lañ war a dindi dindi ko di problème tey bu ñu waxoon du fi jeex am nañu tëdd tey tamit ci hôpital fële ca CTO. waaw ñàkk lu ñu leen jëndalee feer ndax bi sey moo gën a cherati ñàkk lu ko seeni mbokk jëndee xëy na moo leen fa bàyyi. te xamal nañ ñu ne ku accidenté ku dañ la war a faj ay accidenté lañ du ñu jeex. dañu la war a faj du ñu jeex kon ñooñu dañ ci war a taxaw. mais daal beneen bi nga xamante ne tamit gars yi gën nañ ko jooy. mu di ban jooy mooy kër ga ba armeel yi. kër ga. ba armeel yi. expliqué nu Jakarta jeexal na xeet mais mami da nga ñëw ci ci ci lu ma leen doon laaj ak tonton doy Bane ndax mhm. c'est ma petite nièce Aïcha Aïcha Goundiam mhm. Diogu Diabira je mhm. l'appelle moo laajte nee na moom dañu ko wax qu'en traversant da ngay xool gauche xool droite mais moom bu xoolee gauche xool droite su gisul oto léeg-léeg day dem ba ci digg bi nee dafay gis euh, Jakarta waaw xale ko laajte ñuy waxtaan à la maison mu ne moom daal day xool gauche xool droite mais parfois bu ñëlee di di survenir moom du ko yëg. parce que jakarta bi dina mu gaaw waaw mu jaaxal ma jakarta bi dina bur dina brûler feu rouge. waaw. jakarta bi yoonam ci passage clouté. waaw yoonam ci passage piéton. ndegam amati na ci tali bi. c'est vrai ndegam respecté ti nañ ko. Mhm. dañu ne boo ci taxawee bu la oto mbëkkee amul constat moo la tooñ. Mhm. mais léegi da nga ciy taxaw oto di la harcelé pour nga wàcc. amatoo sax droit ñëw xam ne fii nii passage clouté la da nga fi war a jàll yow piéton bi mm. Mm. nga di fa jàll yaa ngi sóoraale que ne bu la fa oto fekkee rey la mm. waxuma nag benn moom moom car rapide yi moom xàmmeeguñ sax bu weex beeg bu ñuul bi ñoom moom bu ñu la fay fekk di la mbëkk mm-hmm. mais jakarta bi comme lu mu romb moom tamit daf koy burle waaw moom ñetti kii la am moom këram la génne taliba la jëm cimetière ya lay teere jee nee naa la boo amee lettre bu jëm yombal xiyam bu ca tafuk timbre subhanallah jox leen ko rek ñu yóbbaaleen la ko gratuitement man day bëgguma benn lettre bu jëm ca <laughs> elle est terrible bëggaguma yo gu ma maa ngi ñaan yàlla daal yàlla defal leen jàmm defal lu ko am na loo xam ne Sénégal yëpp ñu ngi ci teg seen bët dëgg la euh, nguur gaa ngi koy jéem faj policier yaa ngi ciy jéem mm. gendarme yaa ngi ciy jéem am na population ay Sénégal yu ci jéem mais mënuñu ci dara dañ lay defaral pont nga war cee jaar nga bàyyi pont pont baa ngi nii même pas un mètre ci sa wet mm. ngay jégg autoroute bi demal Patte d'Oie padduwaa noonu nga taxaw ci wetu nabul shikara mm-hmm. pont baa ngi nii à côté gars yi duñ jaar ci pont bi dañuy jéggi te soo soo ko soo fa mbëkkee nit am problème pont yi ci dëkk bi yëpp seetlu li ma la wax mm-hmm. pont baa ngi nii mm-hmm. mais dañ fay bàyyi pont bi di jéggi autoroute bi xool boobu danger te xam naa ni ku defoon itam caméra cachée ndoy baan falaa jëm nga ci jël ay image yu doy waar laa lay indil kooku rek doy na reportage ah. suba yooyu laa lay indil da ngay làqatu di jël. damay jël lépp moom kay ñiy jéggkatu point yi moom lañ préparé. doy baan bu nu waxee kon ak borom oto yi tam. ñu wax ak piéton yi. waaw piéton yi parce que xam nga xeetu accident yi doon doonu bare. ñoo gën a sikk ah? yow demal buntu taxaw da ngay mel ne accident dana am oto ak oto ñoom ba kante oto ak piéton. Mhm. et ainsi de suite. waaye kon piéton yi tam am na ñu doy waar. ak beneen bi nekk fan côté Caaroy la xam nga côté fële. mais fépp ci dëkk mais boobu moom non mais mais ba tey buntu Nabil Choucair moom mhm. boo fa demee taxaw da ngay mel ni comme kuy seetaan film mhm. Mhm. ndax da ngay gis ay mag yi jëm yanu ba diis jóge côté euh, Padois bi jëm côté kii bi mais da leen di gis dañuy daw non daw ci kaw autoroute man keroog dama dañuy dem ba yàgg ma gis ko boot doom. Ah. tëye beneen xale di jéggi fii ci kiwu yoon. subhanallah dama taxaw di ko reytaan mais mais da ngay gis maire. Ah. magum jëmm nekk ci foofu. di jéggi woddu sa di di di di di ngolle di dem. di yéeg sa cër yi di feeñ fa ko tere romb. waaw fa ñu ko tere de fa lay dàll di ko def di ko jéggi sa sër di tas noonu foofu noonu. billaahi te xam nga mag. soo nekkee mag comportement dikkul soo nekkee mag da def yi fu mag. Mm. mag du jéggi autoroute. Mm-hmm. nga autoroute à péage bi. Mm. yenn saa yi da ngay daw ba nga gis pas buy jéggi. autoroute à laa wax de oto yi lañ fay daw. Mm. nga gis nit kuy jéggi foofu man gis naa benn pas bu doon jéggi. Mm-hmm. mais xoolal kii su ko oto bi nee leen rey ñu indi problème ki nga xam ne moom moom moom mooy dawal mhm. te autoroute à péage naka la nit di jéggee foofu mhm. loolu problème mais passerelle yi man moo ma njëkk a def man loolu loolu daf ma def kaa mhm. daf ma def kaa yow pont baa ngi nii sawet même su nekkul sawet yow xam nga ni fii lii nga fiy jéggi danger la dëgg la ba ci xoola ba stade de Léopold Sédar Senghor diggante oh, oh, boobu oh. nu mu tuddati ba Nabil Choucair bi noonu pont Nabil Choucair bi mm-hmm. romb stade Léopold Sédar Senghor jëm Yoff côté boobu yëpp ba ci pont Yoff bi la même chose nit ñi dañ fay bàyyi pont bi mm-hmm. jaar foofu ñuy jéggi ci jéggi ci oto yi foofu nga xam ne gars yi cent à l'heure la ñuy daw da ngay gis lu mat trente personnes. léegi loolu loolu tey. waaw bu nu jugee. man fa laa jëm lu ne nii ñu ne état. kooku état bi lu mu ci. loolu état mënu ci dara. li ngeen dara la ci état mënul. comportement bu jagade. waaw xanaa lenn la ci état mën mooy li mu commencé di def ci suufu pont bi mooy ko di feere kaw kii bi diggante bi. Mhm. gis naa diggante boobu. ndax mu bañ a mën jàll du tout kenn du fa mën a jaar. mais li ma wax nii gis nga loolu dafay jar nga dawal sa oto dem ba foofu nga seetaan ko ñaari diggante yii la Ndoye Bane wax nii. Mhm. yaay dem ba foofu nga taxaw mel ne comme kuy seetaan film. ñoo xam ne dañuy jékki suñu xoolee xool gisuñu oto dañuy mel ne comme ay fas course. subhanallah te fi ñu mën a jaar nga nële nga gis koo xam ne dafay aj li mu sol yéeg benn façon yéeg boo xamante ne nee naa la ko boot doom jàpp ci loxo xale di jégg ci bu yoof bi te li ma ci gën a naqari mooy diggante passerelle bi mi ngi mel ne fi ma toog ak fi ndoy baan ñuy jéggi yanu ay bagage gàddu ay bagage nit ñi dafa mel ne comme léegi ñoom ñoo dem bay jaay seen bakkan mais xanaa kay bu ñëpp demee ba fekk fi marché caaro yeeg ni mu toll mm. nga bàyyi marché ba dem di lal ca kaw raay ba mm. tey xanaa mooy nit ñi léegi nag dawatuñ pour que boo séenee raay bi bu nee pip pip am am na nag ñoo xam ne itam euh, ma wax lu xaw a reetaan lu danoo bëgg seen bopp ci inconfort ci la ñuy am ñoom seen confort mhm. xaw ma ndax comprendre nga ma ndoy baat dañoo bëgg lu anormal waaw waaw ñoom ci lu anormal la ñuy daganal ah, parce que itam loolu mhm. loolu dafa doy waar naa la fii dëkk bi lépp looy def lu normal dañuy jàpp ni wéroo ngay jubal sa réew mi ñu ne waaw mhm. soo yoree kaasu café di ko naan mm. tey ko sa loxo du wër poubelle boo ko dugal mm. danaa dana dañuy yaakaar de naan yow sëriñ sëriñ Pape Fall nee na moom moom du sonn daf ñuy delloo li suñu maam suñu soppee waxoon mhm. maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mhm. yal na yàlla yàggal ko fi nee na dafa ñuy wax ne dafa waxoon nañu sang réew mi Mm-hmm. ndax bu nu ko sangul tam réew mi dana sangoo deret mm-hmm. nee na xeetu mbir yi yëpp. Mm-hmm. keroog doy baan yaa ngi ko fi wax. nee na mooy li ñuy gis rek. mooy li ñuy gis waaw waaw. dañoo war a sang réew mi pare yar nit ñi. dañoo war a yar nit ñi nee naa leen lépp looy def ci yoon di ko teg ci yoon. dañuy jàpp ni wéro Ndoye Bane est-ce que may may laaj laaj la est-ce que doomu aadama bi tam soxla na toujours ñu kolee ko benn gendarme pour mu def lu baax. non est-ce que war nañu toll jamono jooju mais mais su la yaree yar bi mun nga yar yar bi ca kër ga la dëgg la sa yaay dalaa war a yar dëgg la sa baay yar la dëgg xamal li nga war a li nga war a bokk waaw ak ña ca li nga war a def ak loo war ta def dëgg la soo génnee am na yéen nee naa la damay expliquer benn affaire mm. damay doon musa wax sama doom yi ni leen mm. soo leen naanee lekkatee seen bonbon ya pare wala seen kanet yi mm-hmm. bu soo leen nekkee ci oto bi bu leen ko sànni ci mbedd bi c'est vrai. di di leen ko wax ginnaaw ñun yàqu nañu ñun ba pare. ñu defar nii ñun moom suñu naanee café dañ koy sentir yàq nañu pare. ñu jéem a ñun ñu jéem a wax njaboot gi bu bu def loolu. bébé fa ñu ànd ma jox ko kane mu naan ba mu jeex joxaat ma ko mais ñoo ngi ci biir oto bi ah, mu ma koy jox man ko sànni ko. mun ma papa fa ma koy sànni. yaa bi waaw moo xale boo teree gros mot boo waxee gros mot da lay mbéj ndax yaa ko ko jàngal waa man maa ne ko bu leen sànneeti lii ci mbedd bi di leen ko wax di leen ko wax bi mu naanee ba mu jeex mu jox ma ko man ko sànni ko mun ma fan laa koy ci volant voilà mun ma fan laa koy sànni automatiquement mu rus mais li nga wax noonu que ne réew mi boo dee jubal boo dee jubal chaque jour yow nit ñi tubaab bu ñuul lañ lay woowee wala xool leen kii dafa dof wala day jaay ne dafa silwise mm. sama rakk Khoudia Mbacké Diop ñëw na Sénégal ñu ànd ma ak moom muy def lu mu lekk taxañ ba mu jekk mu def ci mouchoir dugal ci saagam bu ñu egsee ci kër gi la koy soog a génne ci saag bi yóbbu ca poubelle ba mais ñeneen ñi ñu àndaloon ñoom dañ koy xool bëtu kii xanaa kañ la dof mais xam nga li lay wan ne Sénégal mbedd mi mbeddum buur la ak loo def ne maa tey moo fi landi ba nit ñi xàmmeetuñ li ñu war a bàyyi ak li ñu a bàyyi Eva gis nga fii ku fi bëgg dara xam nga fa ngay jaar bam ko da ngay gis ku xëyee fongale mi wàcc ndakaaru waaw yendu la fi def jaar ci aéroport Léopold Sédar Senghor bi wàcc meneen réewu jàmbur waaw pourtant bu ne cëpp ca réew du tifli ci aéroport ba suy dawal normal lay dawal dawal normal lay dawal doo ko gis mu lekk dara sànni ca mbedd ma doo ko gis muy dox di def lu ko neex ca mbedd ma. Diop est-ce que dañoo iñaane sunu réew. dañoo gis nga damay laaj. ku iñaane sa dono sa deewin ñaaw. sunu xeetu yëf yi ñuy def te mu xaw a doyadi da nga bëgg a wax ne dañu iñaane sunu réew ñun mos naa taxaw ci aéroport bi benn xale bu góor wàcc di dérivalisme ña koy teeroo nga taxaw di xàqataay mu mu ne xaaxtif ci aéroport bi nga ni mu ne xaax tifli ci aéroport bi moom Serigne Touba xam na ne dama ne ñi ma taxawal man bu ngeen ma tëyewul ma dem du <laughs> ma waaj ñu ne man tax man leen ko parce que kii daf ñoo bañ ñun sénégalais yi kii dafa bañ boppam kii daf ñu yab fa mu jógee tifli fa ci aéroport bu tifli woon du egg si. mooyul ma jikko de. mais problème bu nu la yóbbu woon fële ca kile. sa jikko sa jikko la du ko fa def xam nga lu tax. Hmm. poche lay sàmm. su koy defee dina laal nekk lay sàmm parce que xam na ne bu ko fay def di fanaani ndungu siin. mais li nga wax mooy dëgg gis nga ñun. Hmm. dañu dem ba xeet suñu bopp. Hmm. dañu dem ba yeb suñu bopp parce que xam nañ ne loo def dara du ci mujj. mais fii ngay ñëw ci intersection. mu wóor la ne yaa am priorité nga war a dem sa kaw ndax moom nee na taxi man la man taximaan laa damaa miin ni may dawale wala ka nga ñëw camion wala car rapide di xëccoog yow ndax ne wóor na ko ne yow bu la mbëkkee yaay gaañu soo ko mbëkkee yaay gaañu muy njëkkanteeg yow du mujj fenn nga wax ko mu génne loxoom xool la ba nga xool ko mu daggal la saaga wu rëy rëy xam nga ñeneen ñu topp ci ginnaawam li ñu lay wax bàyyi ko te dem ñii dañoo def wala ñii de seen saaga yi dañ koo tàmm. waaye wala ko ñoom fi ñuy toog moo tàng moo tax seen. xol yi tàng booy seet jaruñoo topp de. non non ndax nee ñu mag du tàmmali saay-saay da koy tari. mais xam nga li Cheikh Abdoulaye sama sëriñ bu baax ba waxoon. Ah. nee na ki dul jëf-jëfi nit lu wax waxi nit boo ko jàppee nit yaa nitoo di ko ñoom fi ñuy toog fi la moteur bi nekk moo tax ni muy tàngee ñoom seen bopp noonu la ñuy yendoo tàng da nga bëgg mos ah. ngaa fekkee wàccum borom yooyu yëpp tam da nga ko jàng non ndajam boromi car rapide guddi gi mos nga ko fekke wax ñu tuuti ba ma ko accéléré gis nga bi ma ko fulee signal muy dof dof lu ma tël ko jàll waroon na maa xaar ba ma rey ko yooyu la ñuy waxtaane de seen waxtaan yëpp <laughs> euh, euh, ñuy dimbali rek nun dañu toog te caméra yi jàkkaarloog ñun nga ni ba nu ko nake dellu si ba muy dof dof lu ba fel ko signal mu di ma xool gis nga bi ma ko tëggee première laa ko dóor waaw maanaam daganal nañu daal daganal nañu xeetu yëf yooyu ñuy def waxtaanu gudd seen grand place yow soo ko fekkee woon bu rapide génneetee gis nga bu rapide braqué nga daw nga seen pneu bi ah man fu rapide ne nii braqué jëmale gauche man damay freiné mbala ma accéléré dem waaw du ma la fa xaar dëgg la waaw ah. dale da day yàq sa oto rey la tudd doy baan sa jigéen waxati na waaw non wax na dëgg mm-hmm. dalay dalay day yàq sa oto rey la te du mujju fenn. dëgg la accident yi fii ngeen fiy dégg yëpp nit mbëkk ay nit rey ay fu mu mujj. Ah. fenn fenn leen du mujj waaye dañ koy jàpp tëj ko. quelque temps te ci boobu boo nekkee ci ci ci véhicule war nga xalaat sa sécurité waaye itam xalaataale sécurité keneen ak keneen ak keneen. loolu la mooy li ma ko soo nekkee ci tali bi. Mm-hmm. respecté ki sa kanam. respecté sa ki sa ginnaaw. Mm-hmm. respecté kii ñëw. Mm-hmm. vigilant yàlla mën na laa mën yàlla mën na laa may may may jàmm yàlla mën na laa suturaal. su fekkee yow respecté sa bopp. takkoo ceinture. dëgg la ah. yor sa téléphone voilà. Mmh. respecté woo ki ci ginnaaw respecté woo ci ki ci kanam. Mmh. kooku maara day taali. su fekkee da ngaa yab ay nit mi da nga koy da nga da nga leen di rey ci taali bi. dëgg la dégg sama mbokku policiers yi nag bis bu nekk ak gendarme toujours toujours ma leen di défendre. Mmh. mais nañuy bàyyi tamit suñu arrêté oto. camion. mu nay droité ba ci tali bi. dëgg la wala ngay arrêté ay oto yu baree bare baree bari nga arrêté leen. ci àll bi da ngay gis ñoo xam ne monté nañ dañuy wàcc arrêté ay oto yu baree baree bari ci ñaari policier wala ñaari gendarme loolu tamit dina indi insécurité ci kaw kaw tali bi ngay arrêté benn soo contrôlé pare bàyyi ko mu dem nga arrêté keneen benn par benn mais soo leen fa dajalee ñoom ñëpp uh-huh. day indi embouteillage ba pare mën na indi chock uh-huh. xam nga mën na mën mën na indi choc gars yi uh-huh. nañuy droité wàcc tali bi carrément parce que tali bi yaatuwul te ndax nee ñu itam 2 pour cent wu accident yi yëpp boo ko dee gis 2 pour cent ci accident yi. Mhm. boo ko dee gis état wu tali yi itam moo ko waral. waaw tali tali dafa am problème. Mm. nee naa la fii li ko commencé Dakar Ndar. dëgg la mu tudd wala Thiès Ndar. Mm. nga fay dégg accident. su dul diggante Thiès Ndiassane Thiès Thiawane diggante boobu dinay am accident lu bari mais li ko commencé Thiawane jëm jëm Ndar accident yi ba fa parce que tali bi dafa yaatu ba pare tali bi dafa baax tali bu baax la loo fay dégg dinay am nag mais doo ko fay dégg lu bari li nga fay dégg lu ëpp mooy diggante jam ñaaju jëm Kaolack foofu mënoo toog un mois boo fa déggul doo déglu mooy zone yi nga xam ne daal moo tax voilà ak àllu àllu kaañ bi àllu kaañ bi diggante Thiès Pout jàpp jam jam ñaajoog yooyu diggante boobu dañ fay am accident parce que tali bi ci boppam lañ ko war a yaatal bu baax a baax a baax a baax après defal maanaam defal ko ba mu leer dafa ay lampe surtout guddi gi gi foofu maara day taali lu nekk moom moom moo moo moo fay xew te comme li mami doon wax dañoo dafa am dëkkuñu fi ñoom ñun kese oh, oh. yàlla dañoo sàkk sàkk ñeneen ñeneen ñoo xam ñi ngi nekk ci ñun di dund dund suñu biir mm-hmm. donc ñun ñëpp yooyu lépp dañ ko war di sóor mm-hmm. ma état tamit nay def la ko war surtout su defee la dóor daneen xam ni kat def na la ko war il faut mu yar population ànd ak ay sanctions ànd ay sanctions mhm. séminaires yi nii nii maam mi doon wax mhm. c'est vrai nañu arrêté séminaires yi bari man mhm. mii dama daan dem ay séminaire dem naa ay séminaire ba tàyyi séminaire ya lañ fa tënk dara lañ mu mujj man dem naa fi séminaire boo xam wax nañ fa lekk nañ ay lekk yu neex ay ay ay hôtel yu neex sooy ñibbi ñu jox la xaalis nga dem mais la ñu wax ci séminaire ba kenn du ko appliqué man séminaire yi ma demoon bokk lañ fa wax yëpp gisaatul ma lenn luñ ca def. te koo ñu ci moom lay tijjee sànq ne dañu nuy wax prévention prévention ànd ak. jël sa précaution waaye bu nu dikkee furaas. Ah, c'est ah, ça tey xam nga li ñuy waxtaanee ci biir buñ ko génnewul ci biti ba nit ñi man ko xam. nit ki tamit lu mu xamul kumpaam la. c'est ça beneen bi ci topp mooy gis nga ndooy yaa ngi lim yoon yi gën a bari accident. waaw mais booy xool tamit continuer bi tàllal bi dem Touba tamit. Mhm. na ministre bi xoolaat doodaan yi. Mhm. dëgg la na trop. Mhm. te doodaan boo ci gis mi ngi toll ne bàmmeelum nañu ko xoolaat parce que doodaan bu yaatu mhm. am na ñoo xam ne dafa yàq seen oto am na ci ñoo xam ne duñu ko sóoraale parce que doodaan yi dafa jegente pour man li ñu defaree doodaan yi yokkoon na tali bi mhm. wala ñu defaat yeneen panneau de signalisation yoo xamante ne dina gën leeral tali bi mhm. pour que yenn yooyu yëpp ñu gën a mën di ko moytu mais doodaan yi bari na yaatu nañ metti nañ beneen bi ci des nañu sàkkal sarax tali yi <laughs> am na fi tali boo xamante ne. Hmm. ba dafa soxor te day laaj sarax guddi yi ñu toll. <laughs> accident am na fa bërki démb rek waaw mais Linguère may dégg boo xamee tali bi wax nu wax nu rek. <laughs> yoonu Kaolack bii <laughs> dafa mer mi ngi laaj sarax te saltige yi laaj nañ ko mais mais Ndoye Bane pourquoi. xeebal kenn benn xalaat. xew xam naa li wax bu baax dañuy jiiñ ñaankat ñun ñaar. yéen ñaan nii waaw dañ ñuy jiiñ ay sëriñu tariyaax yéen ñaan waaw ku leen koy jiiñ noo bari na ci dëkk bi dañu koy jiiñ léeg-léeg sax nit wooñu ne ndax doo wax doo ma ci jàppale wala nga am na nit ni ma des sama sëy bi <laughs> ne des fois nit woo ma ma de <laughs> man de benn xeetu ñaan dafa am ñaan goo xam ne man moom laa bëgg ñaanoom am xaalis te dama am ñu ma ciblé woon nag ci dëkk bi ne danaa leen ko ñaan bi moo tax ma ni boo taseeg borom barke dëgg uh-huh. ku bare koppar uh-huh. da nga koy dem tàllal sa loxo ni ko ñaanal ma parce que yàlla bu la bëggee la lay defal yenn teraanga waaw ñun nag dañu léegi man ñaanal leen ma ma bare koppar gudd fan ak bare koppar dañ la koy ñaanal mais yoonu ah, Kaolack bi yoonu Kaolack bi tali ma dem ci ajaratu Anna Gueye aljeeba mu ñaanal moom dina ñaanal sama ma nga naan ah awa na ba na ma ba tali Kaolack bi nañu ko sàkkal sarax ak yeneen tali yëpp dëgg la mooy li ndooy baan doon wax sànq dëgg la mooy que réew mi dañu fee dëkkul ñun kese dëgg la dafa am lu ñu fi dëkkal am lu ñu ko bokkal te tali yi boo koy dindi da nga koy dindee ci kaw yoon. Mm-hmm. mooy booy dagg tali. Mm-hmm. te boo fekkoon mami Diop simple mu togg ak njabootam nga ñëw bëgg koo tuxal ca fa mu nekk te ma yëfi boppam. wax nga dëgg bala nga ko faa jëlee mu jaay la doole. wax nga dëgg waxuma laa nag koo xam ne ba heure ba muy gis doo ko gis. Mm-hmm. doole ja mu am amoo ko kattan nga ko yàlla may mayu la ko. moom moo lay gis mais yow doo ko gis. boo ko weddee nga laaj ko chauffeur yi daw moo tax ñu naan nañuy xool chauffeur yi nga xamante ne ñoom ñooy daw guddi. li Ndoye Bane doon am na chauffeur yoo xam ne xàmmee nañ fi rab yi dëkk ndax yàgg nañ ci tali bi dëgg la bu ñu fa egsee xam nañ ban heure la ñuy teg seen tànk ban heure la ñuy tegg seen tànk dëgg la donc loolu nañ ci bàyyiwaat xel te chauffeur yi bu ñuy demati ñu ànd ak set ak sell ak di sàkk sarax nit ki li muy def ne nga keroog ñu bàyyi yeewu ca kaw lal ba rek daal di bopp bi xaw a am leen ki leen ñu daal di dem bu ñu yeewoo sël mu sax du leen ci fekk mm. ndax fekk nañ euh, coxeur yi yebal nañ leen kaar bi ba kaar bi fees mm. dañuy ñëw duñ ne sax asalaamualeykum wa rahmatullah waa kaar bi du ñu leen nuyu sax na leen ne leen yàlla yónnee jàmm ñooñu delloo ko ko mm. beneen bi ci topp mooy xoolal tey boo jëloon tey chauffeur bu mel ne man nga yebal ma biis ba mu fees dell mm. nga jëmale ma Kédougou ma dem ba ci àllub Kédougou bi ma war a dugg ci biir euh, kii bi xam nga ne su ma fi egsee xaw ma ban heure la gaynde yi di jóg ak yan heure lañ dul jóg mm-hmm. te pourtant am na ñuy dem Kédougou bu ñu egsee ba ci parc bi xam nañ ne heure bii gaynde yi dinañ tëdd ci àll bi dañuy taxaw freiné. kon oto yi tam nañ ko jox ay nit yu expérimenté. li ngeen ñu am expérience xam nga yow transporteur bi. Mhm. yaa warul nangu jël sa oto di ko jox ko xamul dara. su oto yu mag di wax sànq. parce que boo ko joxee xale bi xamul dara xale bi yaa ngi jàpp ne yow tuuti nga koy fay mais moom mooy dund ci oto bi te li muy dundee ci oto bi moo ëpp sax yow lañ nga ko waroon fay ki nga war a fay 150 000 nga fay ko 150 000 ki nga xamante ne 50 000 nga koy fay mi ngi yóbbaale ay dépenses ci biir oto bi. dépense yooyu day fay place comme ni nit ki di fayee place te yow moom moo koy encaissé mi ngi yëpp plus de bagage bagage yooyu système de transfert d'argent waaw bagage yooyu dañ ko ciy defaale bagage yooyu duñ ko bind ci bordereau bi ñu lay versé we waaw donc yow doo ko gis mi ngi fraude leneen bu fekkee ne mi ngi dem ci dëkk bu ñuy jëlee fraude mi ngi fraude leneen ci oto bi loo xam ne su suñu ko jàppee mooy waral mu naan police jàpp na ma jox naa ko 2000 mm-hmm. douanier jàpp na ma gendarme jàpp na ma fekk ne mi ngi fraude ci sa ci def beneen commerce boo dul bi ko boo ko joxee ko responsable nag day xam ne salaire la am. dëgg la beneen bi ci topp mooy oto yu mag yi dem fu sori. kee mm. Kédougou euh, Tamba. Mm. Ourossogui yooyu yëpp dañu war a am deux chauffeurs. Mm-hmm. bu kii di bu sonnee comme avion. su kenn ki sonnee keneen ki jël nga di leen fay parce que oto bi mën na génne lu ko mat. beneen bi ci topp waxaat naa ne pneu venant. Mm. simle lañ koy def mais kenn du ko def ci kanam. boo ko ci def buy tàng oto bi simle mooy. ñaari pneu yi nekk ci ginnaaw boo xoolee camion dañuy simle. boo xoolee car dañ koy def du ma transporteur nag mais jaar na. similaire la wala lu mu bëgg a man kii man man dama bëgg. similaire la simile rek la. simile waaw mooy ñaari pneu yi nekk ci ginnaaw rek. bu dee yu kanam yi léegi léegi dafa am lu ma bëggoon laaj rek <laughs> ah ñëpp euh, kile da nga mës a doon transporteur. waaw ko ah d'accord c'est clair oui oui oui waaw macha allah macha allah. soo euh, waaye waa Régé may wax daal ni ma ni ma xam nga man bu wax jógee fenn dama nee nan ma itam seetkat nga ña ngi lay tooj de <laughs> dana man nag sa dara laa wóor wóoluwul sàllaaw boo dee seetkat na nga fexe ñaanal ma man ne ci jàmm yàlla defal ba jàmm defal leen ko loolu duma ci tontu tey <laughs> eh, waaw lépp ndoy baa na eh, ndoy baa eh? waaw waaw mais xam nga mbir mi moom da ngay waxtaan ak ki mag rek dëgg la sooy waxtaan ak ki mag rek pour émission bi lay doon rek. Uh-huh. nga waxtaan waaye dafa fekk itam ni mbir di nga ci nekk xam ca dara li mu wax. nii dëgg la noonu non non moom moom moom neenaa naa ko. macha allah da yor ay bis di ma ko nëbb. loolu laa ko wax dëgg la dëgg la macha allah. nee naa ko ma ko xam nga ay dëgg la dëgg la bis di ko ko nëbb mais xam nga li mu wax yëpp. dëgg la dëgg gu wér kër gi Sénégal la ñu nekk man daal fi may taxaw mooy su fekkee da ngaa jël mbir muy mu nar a nekk sa métier. Uh-huh. dee ca dem ba mu jeex. Uh-huh. respecté sa métier. Uh-huh. gi gis soo respecté sa métier. ndogulu yàlla rek moo mën a ñëw. dafa mel ni dafa am ku ne ci liñ bi te ñu ko jël. mu doon salaamaaleykum mu doon téléspectateur bu mujj ci tey rek. allo euh, allo. oui. salaamaaleykum. salaam. kii bi ajaratu ñu ngi lay nuyu bu baax. maaleykum salaam. Euh, ñu ngi lay dalal ci émission wareef. man la jee maa ngi wootee Njaañ luga naka njàmbur njàmbur yi. ñoo ngi fi. mbaa yéen a ngi ci jàmm. ñoo ngi ma nuyul sama faatu sama faatu mi nga ma nga Louga bisimilah ci wareef. man Moustapha Diop laa bëggoon waxal. Moustapha Diop ban. allo ndax ndax juumuloo soppee yaa ngi ci oh. émission wareef allo Moustapha Diop Louga lay wër ah moom mu mel ni boo demee nag gis nga bu ma ko geesu woon yaay dong lay sant mënta sant leneen Moustapha Diop meeru Louga lay wër ma ma jël ma jël keneen allo yow mi kumba ak a gaaw ci dem na dem na moom du geesu ñaari yoon danaan la dem na dem na ndoy na moom mu mel na nag na bee ngi nuy dab mhm. ah waxtu bee ngi oh, jot na noo indi tey lu am lu am solo mhm. waaye nag itam suba daanu fexe rek xam naa waa prévention routière lay dem seeti ma indi leen ci plateau bi fan yi dafay gàtt faaw nu gën a leen a woo ak fédération assureurs yi ñoom itam da nga leen soxla ñee ñee war a ñëw de. foo garanti oto moom ñetti ñetti ñetti nit la ñuy doon ñett lan. ñoo fiy dikk bu soobee yàlla.